trois espoirs. ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre fii ci seen lamb TV nee naa leen mënuñoo dugg jàmm gën ba génn te ñëwuñ seet si ki nga xamante ne mooy sëñ Fallou Mara ku ko xam xam ko ak Liss xam ko ak Laurent Ndiago kon tey rafet nañu dugg fi waxtaan ak moom ci ñaari xale yi nu mu leen téyewee ak euh, xale yi bu ñu amee combat lu mu leen di conseillé ak lan lay gis maanaam ban yëg-yëg lay am jamono bi ñuy ñàkk wala jamono bi ñuy am sëñ Fallou maa leen lay nuyu di la ziar. waaleykum salaam wa rahmatulah pël bu rafet ñu ngi lay delloo ziar di lay jox sa waay di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké xalifa général de Mouride mu yàgg loolu te wér di lay bég bu baax a baax a baax pël. di bëggee Kalidou ak Serigne Lambalok yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax macha allah euh, sa digganteeg Liss Ndiago ak Laurent ba ma doon wax loolu. waaw sama digganteeg euh, Liss Ndiago mën naa ne ànd bu yàgg la mais lépp Laurent moo ko waral ndax loraan Laurent ñoo xamante xamante bu yàgg bi may nekk taalibe di yalwaan di ñëw seen koñ ñu nekk ci babi bi di babi. xawul woon ni bis dina ñëw mu doon borom xam-xam man xaw woon ma ni bis dina ñëw mu doon mbër bu làmb yàlla di def di def di def di def bi ma paree jàng ba tarbeew sama sëriñ ba yàlla dénk ma astuur ci xam-xam mu yëgal ma ni day bëre ñu ànd ànd bu rafet ba koroog mi dugg arène ma taxawaay ci moom taxawaay boo xam ne diggante mag la ak rakk diggante sëriñ la ak taalibe mu wóolu ma dayloo ma ñu dem dem dem dem dem ba wax dëgg fa yàlla am benn kóllëre boo xam ne ni jégg na dayoo mën naa ne sa guddi dina ñëw seet si ma ñu toog waxtaan waaw te lépp lu muy dugg tamit dina ma ci yëgal muy moom muy liis tamit waaw. macha allah liis jël combat diggante ak naaru sukaas coow li bëri combat yi yàqu na semence ñaari yoon ba ci troisième fois bi ci lañ bëri depuis combat bi taxawee lan nga gis. waaw combat bi biñ ko njëkkee jàppee bële bële jàll mu yàqoon biñ ne làmb ji des na une semaine Laurent daf ma woo ni ma léegi dama bëgg ñu waxtaan ci làmb ji ma ne ko ah man de làmb ji li ma ci gis mooy leerul ba suma ma juumul sax ndeysaan yow yëg-yëg bi nga am ci moom waxoon naa la ko man la làmb ji leeragul mu ne ma léegi noo gisee bis bi ma ne ko bis bi góoba mu am man maa ma ne ko waaw. bi bi yàlla defee nag làmb ji amul bi ñu xëyee toog naa waxtaan ak lis ma ne ko boo jaaree fi ma la jaaroo fii ak fii am naa yaakaar bu wér ne làmb ji di nga ci am ndam ñu waxtaan li ma ko wax tamit mu def ko ma dem këram li war sama diggante man ak moom li may taxawoo Laurent ma taxawee ko noonu yàlla def làmb ji ma am ci ndam waaw moo tax daal am naa yaakaar bu wér ni bu entraînement yee topp ay kilifaam metti lépp loo xam ne caaxaan la ndax dama koy wax chaque jour mbër àndut ak caaxaan waaw boo nekkee mbër da ngay xam li nga bëgg ak li lay mën a may nga jëm si kanam nga def ko muy lan da ngay meetu xale jigéen yi meetu yenn génn yu bëri meetu yenn sorte yu bëri fonk say waajur entraînement tëdd nelaw loolu moom boo ko defee moom di nga jëm si kanam mais mbër moo xam ne moom dangay bëgg di jëm si kanam ba pare di koy boole caaxaan loolu mënul ànd ak mbër chaque jour dama koy conseil mbër yi fii ñëw yëpp waaw mais ñooñu moom damaa dëkk ñoom mën naa ne samay doom lañ moom mhm. taxawaay ci moom jouru làmb ji nga ëmb ko yóbbu ko stade ànd seeg yeneen naw ñaan kat sa taxawaay ci moom jour bi nga koy gis muy démb mu war a bëri ji ba tey ban yëg-yëg nga amoon ci lan nga gis boobu deret bee tàng rek dem naa ba këram ñaanal ko nu ko taalalal sa loxo ndeyjoor mu taalal loxo ndeyjoor bi ma am lu ma ci bind de ins mi koy sotti galaaj ma ne ko tey làmb ji ak nu mu mën di demee ma ne liis dina door naar sokaas mu wàcc kon yaa ko jox naar dóor mu daal demal nga dégg ko micro man jomb naa wax loo xam ne nii liis da ngay seetaan naan ah sëñ Fallou mi moom man kilifa laa samay wax dina la mere de non la rek xam nga naar sogaas moom dafa nekk magum boo xam ne nii euh, dem ba tollu tollu tollu ci làmb foo xam ne nii ñaan jox ko gëdd bi ko war a jox ndax ñooñu dugg nañ fu ne xam nañ lu bari waaw ah, loolu nag day nekk ci mbër day am mbër mbër day dem ba foo day dem ba am fu mu toll foo xam ne day xaw a décrasé wu ci wàllu ñaan bu ko defee nag moo tax euh, bu ñuy bu ñuy bu ñuy bëreeg xale boo xam ne day fonk ñaan ah tey metti seen benn côté waaw ndax li laa ji wax dëgg fa yàlla ñaanul na ci entraînement na jox na ko cër def na li mu war a def fi gars yi foogoon nañ naar sogaas fa la koy mënee moom bi mu ñëwee fa la mënee loolu nag lu ko mën lu ko lu ko lu ko mën mooy entraînement ak xam li mu bëgg xam fi mu jëm xam ne topp si ginnaaw man loo benn kàddu rek laa ko wax boo gesoo mbooloo mu topp sa ginnaaw war na laa may bépp jom ngay boo xëyee ngay entraînement ndax man du ma leen jëy damay ànd ak ñoom ci dëgg waaw ndax yéen bu ma am ci Laurent bu ko raw laa ëpp ci moom. Mhm. ñoo bokk sax euh, Laurent gëj bëreem bi lan la yaa ko ne mu xaar wala lan la. waaw Laurent moom euh, comme mbër mu ndaw la. waaye wàccaayam dëgg dafa nekk wàccaay boo xam ne nii wàccaayu mbër mu mag la. lan moo tax. waaw ndax combat euh, am li ñuy préparé la te lu ñuy waajal la te chaque jour moo xam man ne loraan dama ko waajal mu door a ñëw ci làmb ji. bi mu yàggee bëree yàgg na ñaari at topp na ma suñu fàllu maa bëgg a bëre ma ko Laurent xaaral wóor na Seexul Xadim ma samp ko ba pare ci moom ba am yaakaar ci moom ni kii bu duggee ci arène bi dina ci am dara mu ne ko mën ngaa jël avance nga dugg mu njëkk a jël booy bi ñuy wax booy plateau yàlla def ci ndam mu ñëw jëlaat buusita yàlla def ci ndam mu ñëw jëlaat alliance ba la yàlla def ci ndam bu amee combat nag du gaaw a lu tax loolu mooy daf may déglu waaw Laurent bu amee combat daf may déglu maanaan ko toogal ba si kanam nga door a bëriwaat waaw mais bu ko neexoon tey saison bi mën na see am ñetti combat te loolu taw ko waaw ndax man. nii toogaay yaa ne ko wax mu toog fan yii laa ko door a bàyyi ma ne ko nag bu la neexee nag mën nga jël mbër bu neex a ay wax ñu ngi koy wax moom ak Ziza ak ñu ngi koy wax combat keneen ak moo bëgg na Ziza man mii di wax ak yow petit promoteur dem naa waxtaan ak moom ci combat moom Ziza Fallou Ndiaye waxtaan naa si ay promoteur yu bëri yoo xam ni nii dem nañ jox combat bi mais lu jot yomb mais es bi nii Laurent ak Ibi Avia combat la combat dàq jàppal Ibu Afia na jël combat bi na ko jël Ibu Afia jëlal combat waaw. xanaa loo si <laughs> ko. daa ñor bu ñor. xomb la. te booy bi naka laam bàyyi xel la kenn ëpp ko ngeem nag ci moromam yi. Ah bon wër na seexul xadim kenn ëpp ko ngeem. te nangu na entraînement foog na ay kilifaam te loolu rek mooy euh, li nga xam ne moo tënk non man nag xam naa ni gars yi ñu ngi may soññu chaque jour sama xaritu sëriñ yi ñoom saa Touba ñoom Diagne ndeysaan dañuy bëgg may ñëw esat lu bari di seetaan si làmb waaye xam naa ne bu jotee rek incha allah rabbi dinaa ñëw incha allah ci kattan suñu borom. am looy négandiku. Ah, loolu la moo tax quoi <laughs> waaw dinaa ñëw esat incha allah. ayca kon maa ngi boo amee looy dolli liis wala Laurent rek nga wax leen ko. waaw nañ góorgóorlu fonk seen waajur moytu lépp loo xam ni caaxaan la xam lu ñu bëgg ak li leen mën a may ñu nekk ci loolu rek mooy mbir mi entraînement liggéey kese waaw am kóllëre seen diggante ak sëriñ si leen ñaanal loolu rek mooy mbir mi waaw jërë ngeen jëf loolu laa leen dénk waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah di lay nuyu pël di lay jaajëfal bu baax yow jigéen bu am jom nga ku baax nga ku am yitte nga ku nangoo liggéey nga waaw di lay wax ni nii la ndax milieu bi nga nekk nii dafa nekk loo xam ne nii yombul nga gis jigéen bu ci nekk kon boo ci nekkee di bay waar di góorgóorlu ñëpp nangu la sa jom ak sa fulla kon loolu mën naa ni ak ak ak njàmbaar la te mën naa ni jigéen bu mën góor ga di lay ñaanal yàlla la fa la cat aar la sàmm la ak Kalidou ak Serigne sama xarit ak Lambalogue Modou Anta tamit sama waay la wax dëgg fa yàlla mën naa ni man ak moom am na fu ñu àgg fu sori maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax Modou Anta mhm, nit ku baax sama xarit sama waay la waaw jërëjëf Paul. ayca jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal di ko ñaanal jàmm merci beaucoup.